jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM ñu leen di nuyu bu baax euh, di leen di jaajëfal mbokk yi ñu fas yéene dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy am samdi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi tey nag ñu invité monsieur Djibril jaata Euh, mu bokk ci parti démocratique sénégalais euh, section jiddo caaray kaw ba pare moo yor lépp lu jëm ci wàllum communication euh, fédération bi nga xam ne moom moo ëmb cadre yu PDS moo yor seen communication ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci Pikine daagu daan membre la tamit ci fédération national des cadres libéro moom la ñu invité tey fa seene waxtaane lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum politique waaye rawatina parti bii di PDS monsieur Djibril Diatta Rewmi FM a ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm si ni ngeen ma honoré invité pour ma exprimer wu par rapport à la situation politique nationale et internationale. Ah, monsieur Djibril Diatta euh, waxtaan ñu commencé ko ak PDS mm-hmm. gis nañ fan yi PDS génne nañ benn communiqué. Mm-hmm. Euh, wax ne dañuy bëgg benn coalition boo xamante ni coalition bu yaatu lay doon euh, ngir mën a jàmmaarloo ak Macky Sall euh, coalition boobu est-ce que jàpp nga ne luy aboutir lay doon ak dina yomb pour mu am. waaw da nga may permettre d'abord ma décliné wu ci mémoire yi nga xam ne ñoom ñoo génn àddina ci xale yi nga xam ne ñoo doon dem génn pour suturaal seen waajur yàlla dogal seen bakkan daal di rot moo xam ci océan bi lañ jaar. moo xam si désert bi lañ jaar di leen massaw di jaal seen waajur di jaal seen xarit xam na lii tiis na trop c'est la mémoire l'espoir d'un peuple moo disparaître vraiment ma leen di jaal ñoom ñëpp di la indil nuyu Ablaye wàdd di la indil nuyu waa PDS di la xamal ne la PDS se très bien di def benn petite rectification je suis porte-parole de la fédération PRS Pikine Daoudiane est membre des cadres libéraux nekk jidde caaray kaw alors coalition bi Abdoulaye Wade daal di wootee loolu lu yomb la ndax Abdoulaye Wade yàgg na liggéey ci coalition ko loolu moom amul leen lu ma si commentaire et l'histoire lui a donné raison parce que li nga comprendre li nga war a comprendre fii mooy maa ngi ko la wax sànq nii ni depuis longtemps plus de quinze mois Idrissa Seck et Macky Sall ont détourné l'attention des Sénégalais si li ñu doon def teg dialogue politique ndekte li ko wundu yëpp mooy comploter pour déstabiliser le PDS te processus yàgg nañ ko dox moo tax tey Macky daf ñu dimbali parce que le jeu est très clair kon coalition bi annonce la nii rek mais ñun ñoo koy togg te incha allah parce que ñu nekk dafa bëri dinañ ko réaliser loolu lu la si ñun waaw mais euh, bu ñu gisee tey ñu nekk ci opposition bi euh, ñan ngeen war a lëngoo liggéey ndax tey boo xoolee fédération euh, front de résistance nationale. Mm-hmm. coalition boobu noonu. Mm-hmm. PDS bokkoon nañu si bokkoon na si. Mm-hmm. te gis nga ni mu si mujjee ni mu si mujjee doxee. bu ngeen doon def coalition tey ñan ngeen xalaat dugal leen ci coalition boobu. xam nga la stratégie elle est muette mooy booy def benn pexe. da ngay bàyyi mu sotti nga soog ko wax mais daanaka loolu sotti na mën naa la ko wax fii parce que wadd du tëb rek wax si si hasard am nañu commencé na recevoir. waxtaan ak ñu bëri ba pare mais du ma tëb rek wax la nii ak nii ak nii ak nii mais jàppal ni daal coalition boobu dana nekk coalition bu large te ñu bëri ñoo ngi fëgg buntu pour bokk si coalition bi man maa la may loolu. su ko boobu. waaw mais euh, monsieur Djibril jaata est-ce que tamit PDS tey du caagi ne dafa dem ba xool ne ma ngi néew doole ndax tey euh, politique addition lañ wax mais PDS li mu def soustraction euh, dafa bëri est-ce que du da ngeen a dem ba xam ne amatu leen doole ak génn Omar Sarr nga xamante ni tey mënu leen a wax ne doon kàngam ci PDS Babacar Gaye maître Amadou Sall euh, est-ce que du néew doole gi ngeen commencé santé moo tax ngeen bëgg a taafantaloo mm-hmm. ab coalition pour bëgg a amaat seen taxawaay ci wàllum politique. Mm-hmm. boo maa ngi lay remercier bu baax a baax si question boobu xam nga nit kenn du ko sous sime même xorondom bu génnee sa parti sa am na lu manqué sa parti melentaan bu génnee sa parti sa am na lu manqué sa parti donc ñoom Omar Sarr ñoom Babacar Gueye ñooñu kenn du sous-estimer seen génn nous sommes très politiques dañu jël acte foofu lay wax ak yow dañu jël acte mais li ma lay xamal lu wértu wóor PDS garabu naataange la mooy boo ko goree mu gën a sax Ousmane Tanor Dieng jël na fi suñu groupe parlementaire jël vingt trois députés yóbbu leen année boobu la ñëw au pouvoir le PDS est habitué à kon loolu moom du suñu problème c'est le cadet de notre ñun fu ñu toll actuellement ni mooy d'abord placement des cartes parce que bis bu nekk boo ñuy réunion peres ñun ñaa ngi fëgg bunt bi dugg moo xam ci xale yi moo xam ci jigéen ñi moo xam ci cadre yi comme PDS depuis 86 ba tey amul renouvellement ci lañ am ñu départ tey dañu nekk d'abord di massifier suñu parti pour la conquête di pouvoir PDS dafa mës wax ni du gouverner seul kon ci coalition ndax mu dafa mu sax aussi benn parti mënut a gagner les élections seul donc si poil ca PDS moo ko njëkk a théoriser. donc si coalition la mun a demee. d'accord voilà mais euh, mais euh, Djibi. Mhm. Euh, li ñu nemmee ko tamit mooy yéen seen coalition bu ngeen ko taxawalee. Mhm. est-ce que président Macky Sall du ñëw déstabiliser ko tas ko. Mhm. wut ay pion ci biir coalition bi ndax gis nga fi coalition yu bari yoo xamante ne tey. gis nga ni ko président Macky la def. ak parti yu bare tamit yoo xamante ni indi na fa euh, indi na fa pëccëxoo ndax bu ngeen taxawalee ab coalition di ngeen jël seeni matukaay ba Macky Sall du ko mën a tas comme ni mu tasee coalition yi nga xamante ne ci ngeen bokkoon. xam nga chaque chose atteint sa saturation jàpp la phrase boobu ma la wax tey jii nii. Ah. au fur et à mesure Macky di tas parti yi parti am di gën a tas. lu waaw gis nga tey. jëlal euh, Dagana fi Umar Sarr nekkoon tey jii nii le ministre fa nekkoon Cissé. Makhtar Makhtar Cissé ay mbokkam tey lu ñu def jëlal la comportement de Mimi Touré parce que munoo toujours c'est pas chaque addition rek moo yokk nombre bi wallahi boo boole ay golo ak ay xaj nombre bi néew c'est ça que Macky Sall n'a pas compris foog mu nangu dina am opposition foog mu nangu dina am ñu léegi société civile foog mu nangu nam au pouvoir Macky Sall nag c'est la PDS qui l'empêche de dormir moo tax pexe na lu nekk mais coalition bi Abdoulaye di indi demal na du ma bëgg di wax lenn Abdoulaye moo koy ñagal boppam n'oublie pas que Abdoulaye yàgg na ko dénoncé man mii yàgg naa taxaw di wax réunion des cadres qu'il y a des dans le partie effectivement Macky Sall a créé partout des fantassins ñu émerger au palais di rendre compte léegi le jeu est devenu très clair qui aurait pu imaginer que Idriss Seck da daan waxtaan ak Macky Sall plus de quinze mois alors que gaa yi ngi si dialogue politique bi ñun boobu lañu xamoon bu yàgg nañu si bokk parce que lan la ay naxaate la kon Ablaye Wade fi mu jaar si politique kenn mu ko nax mais coalition bi ñuy def nii bi mu wóotal boppam nii moo koy ñagal boppam parce que nu bëgg jox nag beneen offre politique bu bokkul bi nga xam ne da ngay màngaani da ngay wagajaane loolu dafa war a xew yi voilà mais euh, li ma jaaxal tamit yéen ci PDS. Mhm. Euh, seen wax yëpp Abdoulaye Wade rek ngeen di wax. yéen lan moo tax yéen cadre yi. Mhm. yéen PDS yéen seen bopp bien vrai que Abdoulaye Wade. Mhm. Euh, kenn mënu ko génn ci ci politique gu Sénégal mais yéen chaque jour Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ndax yéen mënu leen a jël relève bi. mais ñun jël lu tax lu tax ñu dem massification bi mais Abdoulaye wane na ses preuves te ñi nekk ci classe politique yëpp ay doomam lañu. Abdoulaye moo taxaw ne politique jaamu yàlla la tant que maa ngi dese lu may nooyi damay jaamu sama borom waa kii wax loolu nangul ko ko ñun dañu jàpp ne politique jaamu yàlla du wag a jaane déedéet politique du wag a jaan du da ngay am sa métier ñëw jàppale doomu aadama yi mais ñii mu nekkee nii sip nañu politiciens yëpp te Abdoulaye Wade moom politique sacerdoce la si moo tax mënuñu ko si génnee parce que nit ki bu dee ba jàpp ne li jaamu yàlla la muy indi xel yu rafet ah di jàppale nit ñi mais loolu waroo ko si génnee. waaw mais euh, waaw mais xam nga sànq yaa ngi wax dialogue politique bi. ay naxaate la. waaw pourtant yéen 2016. waaw def ngeen def ngeen ànd ngeen ak Macky Sall. si mm-hmm. dialogue bi te Omar Sarr mi nga xamante ni tey moom moom toppoon ci Abdoulaye Wade euh, bokkoon na si ñi demoon représenté fa PDS bi Omar Sarr génnee moom wax na ne dialogue politique boobu. li ko taxawoon a jóg mooy ñu libere Karim xam na ko loolu ay tappale la woon dialogue politique boobu ndax dialogue politique boobu noonu seen intérêt daf cee nekkoon moo tax ngeen bokk si dialogue politique bii da ngeen see gisul seen intérêt moo tax bokku leen ci lan nga mën a expliquer si ñaari dialogue politique yooyu. xamul li ma la mën a expliquer mooy Omar Sarr je le respecte beaucoup sama xarit la euh, biir biir biir aussi euh, APR am na fa xaalis je dis la politique n'est pas l'arène où tous les coups Et il faut éviter des discours de circonstance xam nga Omar Sarr boo jëlee waaram la mu daan wax démb yow mii dama posé question ak la mu wax tey bokkul ñun fu ñuy dem bañ naan fàng bul fàtte ñu dañoo privilégié dialogue Abdoulaye Wade subir na lu nekk si Abdou Diouf mais bu dialogue ñu day assumer dem toog moo waxtaan ak moom. mais kon bu leen attends non non non dafal nànk parce que dama bëgg toujours parce que ñii dañuy jaaw lu bëree bëri bari xam nga muuroo deru bay ah nekk bukki muroo deru bay di ndax nit ñi bokk la ku ne fang ne lii laa bëgg a def Abdoulaye buy dem fenn day taxu ne fii laay dem ba pare génne communiqué al Abdoulaye du magum lëndëm too loolu laa bëgg expliquer damay jël ñun bu ñuy nekk xale danaan waxtaan ak Abdou Diouf nga mel ko ñàkk mu fangal ko bi muy dem si Macky Sall dafa génn télé bi wane ko danu bëgg politiciens yi di assumer seen responsabilité et di di di constant par rapport à le discours parce il faut ñu changer notre méthode de faire la politique il faut mu am moral am éthique mais Omar Sarr yow mii di ma poser question xam nga ni discours bi mu tenir fan yii ak la mu doon tenir bokkul loolu rek la am pour wax. mais euh, mais Djibi euh, bëggoon naa nga leeralal ma si ñaari dialogue politique yooyu est-ce que ñi bokk si dialogue politique bi tamit du ngeen leen bàyyi may leen seen sañ-sañ ñu participer si dialogue bi. waaw mais ñun ñun principe dañ ko respecté. mais bul fàtte ni Macky Sall mus sa dialogué fichier bi dialoguéwul référendum bi dialoguéwul xam nga même bi muy jël parti di na nii dialoguéwul ci lañu ñu marché man jàppoon nañ ma si mais bu bi mu demee ba pare ba gagné élection ba ba imposé gagné élection yi ñoom Idriss Seck mi di wax ni yow xam nga ni nanguwuñu élection yi si la commencé teg deal ak Macky Sall ak Idriss Seck ak gars yi mais ñun duñu dugg si si si engrenage boobu si loolu xam ne lii wératul mënoo toog Idrissa Seck ñu joxe résultat yi fang nga ne reconnaître élection yi xam nga ñëpp taxaw ñu ne bërit reconnaître Macky Sall comme président alors comment se fait-il ko comme président ba pare nga dem di toogoom di dialogue ak moom ñoom ñoo paradoxal mais nu sommes constants dans notre trajectoire moo tax man la ñuy il adopte souvent des discours de circonstance d'accord voilà mais euh, li nga xamante ni moom mooy jëm ci seen ñàkk bokk Euh, ci dialogue national bi. waaw même diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall seen diggante euh, chaque jour dañuy wax que ne. Euh, Karim wàdd mooy ki nga xamante ni moom mooy yàq jubóo bi retrouvaille bi dañuy wax ne Karim wàdd chaque jour moom moo koy yàq. te lépp lu papaam def rek Karim wàdd moo ko def dem nañ sax ba di ko tuumaal seen seen communiqué yi ngeen di génn yépp ka dañ koy génne ci tuuru Karim wàdd ya yan leeral nga ci mën ne indi. Hmm, ndeysaan massa waay Karim Wade yàlla na ko yàlla lafal cat euh, nekk doomu Abdoulaye Wade métti na trop ñun Kalima suñu nawle la nous sommes des cadres comme lui ëpp ñu gis-gis si réew mi gën ñoo bëgg réew mi mais nous travaillons autour d'un projet et nous ne faisons pas du suivisme PDS ku nekk mën na ko diriger. nous ne sommes pas des libertins ñoo nga xam ne da ngeen di rek wattan leen déedéet noonu bàyyi Karim Wade tu penses Karim Wade mën na manipuler ab Ablaye Wade c'est archi faux c'est-à-dire Macky et sa presse ak ñamu xam ne ñoom lay utiliser dans la communication ñoo bëgg a jax jaxase xelu nit ñi pour tenir l'image de Ablaye Wade mais Karim Wade moo ngi dowa section yaa ngi réunir fédération yaa ngi réunir parti baa ngi réunion di génne ay communiqué danga nga bëgg kon communiqué bi ñu def ni Karim Wade moo ñu ko dicté qu'il arrête nanu bàyyi Karim Wade. dugalul loxoom seen communiqué. non non non déedéet mais nous sommes libres ay borom xel lañu mën na jox nag son point de vue son opinion mais imposé wuñu dara loolu laa la ko bëgg a wax. mais lu wax ngeen def ko. non man mii sama bopp Karim Wade mënuma imposer dara à plus fort keneen ak keneen ak keneen dama bëgg loolu mu deñ la diabolisation de Karim Wade daal di dañ nit ki boo ko ragalee mais au moins jos jox ko ak xam naan Karim Wade moo. def non attends mais Macky Sall. yow koo xam ne yaa ngi duwaa munoo ñëw ci réew mi nan lañ lay xam nga xam nga xam nga. comme ni ñu woo ñëw damay profiter ci occasion bi di wax waa PDS ni Karim Wade éligible parce que presse bi ak ñenn ñi dañuy taxaw naan wéy Karim Wade kaay laati Karim Wade n'est pas éliminé. n'a aucune contrainte vis-à-vis de la constitution vis-à-vis -vis du code pénal vis-à-vis -vis code électoral ba muy dem di déposé dossier candidature am conseil constitutionnel da ko ne carrément inscrire ci liste bi aujourd'hui au nom du relèvement de la peine Karim Wade jeexal na mën na bokk ci liste yi comme mën na bokk ci liste yi il est éligible kon damay ñaan ñii di communiquer ci presse bi nañu bàyyi naan Karim dañ ko éliminer loolu moo tiital Macky Sall et maintenant boo gisee Idriss sec ak Macky Sall bokk daal di ànd bien qu'il soit des ondes de même charge négative et aussitôt bu yàgg-yàgg daañu poussé wu. d'accord noonu danañ si ñëw. voilà noonu danañ si ñëw. Euh, mais damay préciser rek attends damay préciser rek pour ñëpp xam ne moo xam waa ñeneen ni Karim benn contrainte la amoon mooy mënuloon inscrire si carte. ci liste bi comme toog na peine boo xam ne passé na cinq ans maintenant léegi di dugaat ma bëgg mu leer si ñëpp. d'accord voilà. léegi euh, maa ngi lay expliqué ci kaaw Karim wàdd waaw xam nga Karim Wade tey mm. boo xoolee mm. euh, Omar Sarr. Mm. Euh, bëggoon na fee bi muy dem si dialogue bi. Mm-hmm. mooy bi leen président Macky Sall convoqué. Mm-hmm. moom li ñu wax mooy. joxoon na PDS joxoon nañ ko euh, carte blanche ngir mu dem ci front national résistance dem représenté ji euh, PDS ñoom d'accordoon nañ ci dernier moment lañ génn waat beneen communiqué boo xam ne dañoo jàpp ne euh, Karim Wade moom moo Karim Wade moom moo ko def ñu bari tamit dañuy jàpp ne Karim Wade mooy weñ loxoob ki nga xamante ni tey mooy Abdoulaye Wade ndax bëri na problème yuy am PDS tamit dañ koy jiiñ Karim Wade barki dem moo njaay bi ngeen fi def seen njaayum carte mi lancement bi te ay ndaw ñëw sànni ay ndaw ñëw indi fa violence comme ni ñu ko mënee tuddee noonu euh, bañ fa jógee dañ ko tuumaal ay ndawi Baara Gaye ñenn ñi tamit jàpp ne Karim moo am problème ak Baara Gaye Karim moo am problème ak Baara Gaye lan nga mën a expliquer ci loolu nga xam ne lu xew ñu tuumaal ko Karim waaw xam nga man loolu su amoon damay bàyyi PDS. ah. waaw parce que dama xam ne PDS doxewul noonu et je suis un esprit libre parce que Ablaye Wade daf ñu yoree boo nekkee ak nit joxal sa point de vue. ok d' accord dama lay wax rek loo xam ne demal ne la nanu bàyyi Karim Wade de côté nee naa la Karim moo ngi doxaa section yaa ngi réunir fédération yaa ngi réunir cadre yaa ngi réunir femme yaa ngi réunir joxe seen position doom ne lu femme yi génnee Karim moo ko génne lu section yi génnee Karim Wade moo ko génne lu fédération yi génnee Karim Wade moo ko génne mënul nekk dañu wax ne dëgg. kon li ñu wax yow mën nga wax ne c'est-à-dire c'est foo faux c'est parce que dama la doomu Karim doomu Ablaye Wade moo metti ak bëgg a éliminer Ablaye Wade mais ku xam PDS xam ne doxee noonu amaan nañ leen boo dee ba bëgg a génn nag taafontoo Karim Wade nag pour génn ñëpp nag moom lañ utiliser pour dal di génn mais la fi xewoon moo fi xew ba tey ñun ñoo jox mandat à Abdoulaye si ñu texte nekk loo def rek office de loi la office de droit la ñun ñoo ko jox si texte yi la bokk léegi doo ko jox Abdoulaye ba pare muy defar ngay weddi c'est paradoxal loola loola pour wax la. d'accord voilà mais mais euh, keroog bi ngeen def seen lancement euh, njaayum carte mi mm-hmm. am na lu fa xewoon ndax mën nga ñu si dellu si ak Baara Gueye mi si tuumaal. xam nga Baara sama xarit la maa ngi koy saluer de passage Salou Dieng sama xarit la maa koy maa leen di saluer de passage. maa ngi déplorer événement yi fa am mais parti bu dox mooy demee noonu xam maa ngi lay wax sànq nii le PDS presse bi moo ko diabolisé mais moo ngi dund dund gu métti métti ban parti moo osé tey moment bi ñu toll nii day renouveler ses bases amut le PS la essayé mu daal di taxaw seul le PDS moo taxaw ne day renouveler ses instances alors parti bu toll ni PDS bëri ay ambition bëri ay xale bëri ñu fa dugg mais loolu il faut moom des choc des ambitions loolu mënut a ñàkk mënut a ñàkk Abdoulaye Wade moo la gën a xam ne loolu mënut a ñàkk même au niveau des section sax loolu dafay am mais je déplore les événements yi fa am yu yëpp mais amul benn problème Bara def na déclaration ne benn mentor la muy ab Abdoulaye Wade kon il a clos le débat. daal di snobé Karim Wade. non non non yaa koy interprété noonu yaa koy Karim Wade c'est le candidat du PDS. mais baara leeral na carte gi. waaw mais digganteem ak baara nam neexewoon neexeetu ko. noo man mënuwul si man du ma. waaw non man maay wax loolu waaw d'accord très mais aussi nit ki waxal loo xam boo tëddee nelaw. man du ma expliquer loo xam ne man. man non non non non jibi. non jibi man mii xaaral wu man mii. man mii. Karim daf ma daan woo souvent. Mhm. mais tey presque plus de quatre mois cinq mois woo ma. Mhm. ba récemment la ma woo. kon man man soo ma wooyee ma wuyu la soo ma woo kesoon da maa bàyyi mais dama ne mënu ma épiloguer si diggante Karim Wade. ak Baara diggante Bachir Diawara ak Bannon noonu non non mënuma si ubbi mais mais Baara Gueye daal leeral na débat bi nee na Wade mooy baayam kenn mënut a nekk si diggante ak moom. tuddul Karim Wade sa non loolu ça ne veut rien dire. léegi. waaw léegi xam nga Djibi Dia euh, Djibi Diatta euh, yow peut-être mën nga ko bañ a xam wala mën nga ko bañ a wax mais man mi wax ak yow. man xam naa ne Baara Gueye dafa am jafe-jafe ak Karim Wade. ay affirmation laa lay jox dañoo am problème ñoom ñaar problème loolu Karim Wade mënu ko weddi Baara Gaye déglu ma rek Baara Gaye mënu ko weddi beneen bi mooy Baara Gaye ni mu jege yaantoo woon ak Karim Wade musta nekk ci benn télé wala benn rajo benn extre ci rajo une minute trente secondes turu Karim dina ko si dina ko si dugal Baara nan la mën a defee ay discours wax ba ne xaw turu Karim Wade génnu sa yaa problème beneen bi Saliou Dieng mii nga xamante ni tey moom nga tudd sànq ñu bari bu ñu réeroo ak Karim Wade Saliou Dieng lañ tuumaal ndax dañuy wax ne moom la Karim Wade favoriser loolu moom euh, maa lay wax loolu euh, peut-être nag euh, waaw xam nga fii lay waxee ne des fois yenn du loo gis rek loolu la Saliou Dieng est un statisticien un ingénieur statisticien fépp fu Oumar Sarr daan dem daan ànd ak moom parce que partie bi dafa am na muy doxee du point de vue stratégique et technique loolu moo taxoon ñu toftal Saliou Dieng ci départ Oumar Sarr yi partout ñu bëri dañ ko réeree mbir un gosse très distrait sérieux et respectueux du coow du xuloo xëccawul dara Baara Gaye parti bi ko yar cest dafa am ñoo xam ne dañu bëgg dugal ci xelu Sénégal ci xelu ñi ñi ni y' a problème entre Bara Gaye y' a pas problème dama la wax ni partie buy dund ñëpp dafa dugg dafa buuxante il faut moom choc des ambitions c' pas parce que Bara Gaye tuddul Karim Wade rek y' a problème fu ñu téléphone tey doo ko yëg fi Abdoulaye wooree Bara Gaye doo ko yëg donc man sama point de vue li ma xam laay wax. il n'y a pas de problème. Ah, amul benn Tabaara aussi amul benn kuréel bu ñu ko exclure baax no yooyu yëpp si si si si si si wàdd si wàdd mooy doxalee noonu. Hmm. wàdd mooy doxal ñun te ñun ko jox prérogative yooyu ñoo ko jox. lan lañ ko la woon gars yi kii ko. gars yi gars yi ko. lu xaw ma. loolu da nga koy laaj Abdoulaye Wade wala nga laaj ko Baara mais xaw ma. waaw léegi ji lan ma tax mënoo assume ne Baara Gueye dafa am problème ak Karim Wade. non mënuma ko assume parce que gisuma ko te wóoruma te du ma wax lu ma wóorul. voilà. honnêtement mais est-ce que may ñëw comité directeur. mais gëj nañu réunion comité directeur. kan ngeen koy kañ ngeen gëj réunion. gëj nañu réunion trop. te bi ñu Omar Sarr dem ba tey réunion guñu. voilà mais est-ce que avant Omar Sarr di dem seen comité directeur ba ngeen mujj réunion est-ce Baara Gueye ñëwoon na. si danaan ñëw danaan ñëw danaan ñëw. non bu mujj bi laa wax. non bu ñu man fekk ma fi Bambey la ma fekk. mais yu bëri daan ñëw. d'accord jërëjëf. Euh, euh, Djiby jaata euh, moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi moom mooy euh, chargé de la communication de la fédération PDS euh, Pikine euh, Daagu Daan membre la ci fédération national des cadres libéro jibi ñu wax nag ci li nga xamante ni tey moom mooy ñoom Omar Sarr mi nga xamante ni tey dem nañ PDS Omar Sarr maître Amadou Sall ak Babacar Gaye ak ñeneen ñu ñu àndal mm-hmm. ñoom nag yàgg nañ leen a tuumaal ne ñoo ngi réunion ñoo ngi gisante ak Macky ñoo ngi reerandoo ak Macky ñoo ngi ndékk ak Macky instant bi nag ñoom dem nañ fekk ji Macky sàll ndax ñoom nee nañu ku leen woo ci liggéeyal seenum réew dañuy dem euh, génn boobu ñu génn PDS dem ànd jeeg Macky sàll yow nan nga ko jàngate waaw damay bëgg aussi lancer benn appel aux Sénégalais ñi constitution dafa jox ak ak yelleef ñu nekk dans l'opposition c'est pas parce que da nga nekk dans l'opposition rek te contre la nit ki war na mën am choix nekk dans l'opposition di liggéeyal Sénégal nekk dans le pouvoir di liggéeyal Sénégal nekk dans la société civile di liggéey Sénégal donc cet argument là ne ci pas la route loolu la am pour wax la bàyyil booy dem di trahir rek damay liggéeyal Sénégal mais ñi nekk dans l'opposition mën nga fa nekk di joxe say point de vue état bi di ko jël kon loolu amul benn njëriñ Karim Wade actuellement nii si Covid bi yónneewul matériel dox ko Macky Sall de centaines de million mais taxul nekkul ni mu ngi si biir opposition bi ñun ñoo ngi joxe suñu point de vie mais boo bëggee dem rek ne damay liggéey nañu bàyyi loolu opposition ak mouvement présidentiel société bi ku nekk tànnal fi nga tànn mais yaa ngi liggéeyal Sénégal mais nañu bàyyi màngaan bi. léegi màngaan non waaw léegi nag voilà xam nga sànq dama commencé dama commencé analyser nga ki dama la Idrissa Seck ak Macky Sall ils le même destin politique. c'est-à-dire évidemment ils ont les mêmes réflexes politiques les mêmes réflexes de survie politique c'est-à-dire tey jii nii ñoom durant quinze mois ba ñu waxtaanee conclure nañ xalifa Khalifa Sall Sonko Karim Wade ku si ñëw du leen arrangé. ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñaar Idriss Seck ak ak ak Khalifa ak kii ak ak ak Sall jàppal li ma la wax ils ont les mêmes réflexes de survie ils ont les mêmes desseins politiques Karim bu ñëwee. carrière Idriss Seck day jeex Macky moom xam na fu mu mujj Khalifa Sall Sonko donc ñoom ñaar ils ont les mêmes desseins politiques loolu moo tax tey ñu mën a ànd te le troisième mandat tey jii nii moom xam na ne au fur et ñuy dem vraiment avenir am bi gën a yàqu kon Macky Sall léegi prison moo ko tiital parce que il a fait trop de mal il a fait trop de mal léegi nag ginnaawam nag moo ko tiital te aujourd'hui dans son parti gisul ko am charismatique bu mel ni Idriss Seck si lu mu jàpp pour mun a protéger ay arrière am mu dem teg Idriss Seck au cas où avec la mais de la France au cas où Sénégal oppose au troisième mandat ñu ngemb Idriss Seck avec la complicité de Omar Sarr sur le fichier et Antoine Diome il faut sénégalais yi xam ne loolu moo indi seen kii seen kii bi c'est profond xam nga léegi nag non la France ñetti ñi nga cité yëpp arrangé wu leen parce que aussi la la France ay signé des contrats yoo xam ne bu gars ñuy ñëwee dañ koy casser exemple contrat total bi c'est pas valable Thierno al Sall a démissionné il fallait moom benn passation de service balaa ñu mën a signer contrat si saa si lañ ko signé France xam na ni contrat yi bëri ñu mu amee valable mais jàppal lii ma la wax nii Macky Sall kasom daf ko jaaxal. ak njabootam te abalafiri mi may na fi loo xam ne bu ñu ko fayee dina metti si loolu lay travailler su mënu def troisième mandat verrouiller le fichier avec Omar Sarr bi nga xam ne c'est le vrai ministre de l'intérieur c'est le vrai ministre de l'intérieur bis Antoine Diome n'est qu'un entonnoir l'antinoor la day jàllale rek avec Omar Sarr rek bi nga xam ne c'était moo yoroon la PDS fii ak huit ans xam cartographie PDS xam responsable bu nekk na mu mën a lu mënu nag ñu jouer le jeu voilà l'enjeu voilà l'enjeu voilà la réalité dañu Omar Sarr seen ñëw foofu c'est pas pour développer le Sénégal c'est pour anéantir le PDS définitivement mais c'est peine perdue. léegi Omar Sarr nan la mën a euh, anéantir le bon dama la sànq rek Omar Sarr borom xam-xam la Omar Sarr informaticien la Omar Sarr wër na Sénégal. Umar Sarr xam na cartographie PDS Umar Sarr tey xam na responsable PDS bi la mu mëne ak la mu mënewul xam nga ngay xeex ak nit mu xam la nga mën ak la nga mënewul am na benn avantage yow ñu xam stratégie xam nañ ko kon Umar Sarr peut nous être très fatal Macky Sall si loolu la si loolu la def moom Abdoulaye bi ñu bàyyantee fekk waroon na parti bu jël cartographie dem si Umar Sall loolu ñu ko sante te Umar Sarr c'est un informaticien donc dina jouer su lu ficier bi di ñëw nii suñu munta vir su Macky Sall nekkul troisième mandat gars yi s'ils ne sont pas vigilants ils vont virer de telle sorte que fii ñëw képp ku Macky Sall ngemb day dem si ñaari yooyu la ñuy ñi la ñuy jouer loolu moo tax ma bëgg d'abord ñu bëgg une personnalité neutre Antoine Diome entonnoir la lantinoor la loo jàll mu jàll yéen euh, waaw ministère bi ñu ko jox ndax kon ngeen ci. ñun gëmuñ ñun ñun duñ wax lantinoor. dégguma la entonnoir la. lu Macky Sall jàllale day jàll. et je xale bu ndaw ak magistrat fi jaar yëpp yàq na carrière nii rek te nag damay sant yàlla bi mu nekkee ministère dama koy sant parce que ëllëg yi dina ko mën a woo en tant que ancien ministre de l'intérieur na préparé wu à la CREI. donte deux jours la dinañ ko woo na ko ci xool gestion ci ci ministère de l' intérieur fa laay sant yàlla. Ah, mais euh, est-ce que tey jàpp nga ne président Macky bu bëggoon ñetteelu mandat wala ndax jàpp nga ne ñetteelu mandat ma ngi ci xelam. bon man Djibi Diatta maa koy lancé un appel solennel ne ko mu génnee xelam ci troisième mandat. est-ce que xelam a ngi ci. non defal nank rek euh, dama lay wax pourquoi xelam a ngi ci parce que. xelam dafa nekk si ñaar dama la Macky Sall kaso moo ko tiital mais su sañoon dem na bu yàgg yàggam si pouvoir bi yëpp day xool koo xam ne da koy xoolal ginnaawam mais mënatul nelawatul ndax la mu leble dafa métti trop la mu teg xalifa Sall la mu teg Ablaye wàdd la mu teg Idriss Seck mii nga xam ne Sankharé Cheikh moo ko déclassifié la mu teg sénégalais la mu teg ndaw yi ak ñun jaay yëpp moo ngi posé si boppam à tout instant Macky Sall nelawatul ak la mu teg àndandoom yi mu war léegi nag loolu moo tax actuellement nii mu teg benn dispositif pour xool naka la si génnee soit mu ne damay def troisième mandat soit mu ne damay xool ko fi teg la preuve ànd que ñëpp ñi nga xam ne wax nañ ci troisième mandat dàq na leen te ànduñoo ak moom ñëpp la dàq. mais mais digganteem ak diggante Macky Sall ak Idriss Seck ndax jàppoo woon ne bu ñu demoon ba mag Sall bëgg ñetteelu mandat seen diggante mënut a yàqu. non xam nga Idriss Seck c'est quelqu'un bi nga xam ne boo buggee gën a gën a gaaw sa takkandeer da ngay daw ba lottu te Idriss Seck va être plus rapide que son nombre c'est la raison pour la laquelle il craque souvent sans se rendre compte yow Idriss Seck moo taxaw ne lii ñu ko jox nii c'est budgétivore lii ñu ko jox nii su ñëwee la koy dindi. ne bis ni tey indi ay aaye ne moom kenn dootu ko falati loolu askan bi waaw kooku tey mën nañ ko gëm yow laay posé question mën nga gëm kooku tey jii nii non nee na Macky Sall mii du borom kàddu jot nañu jëlee ko fi comme ñoom ñaar ñoom ci ànd circonstance la mooy li ñu bokk mooy ni ñii fii ñëw bu ñu ñëwee dañuy yàqu ñu ne xaar ñu boire la route aux gosses voilà leur slogan léegi euh, ñi nga xamante ni tey ñoo jóge PDS euh, dem fekk ji ak Macky Sall loolu kon yow ndax jàpp nga ne ñoom euh, lu ñu yàgg lu ñu yàgg togg la. waaw loolu xam nga xam nga xam nga xam nga ñi may déglu ci cadre yi tey jii nii dama doon toog réunion ne y a des fantassins au sein du parti Abdou Aziz Diop bi nga xam ne jegewaayu Oumar Sarr la c'est que presse mosu ko relayé de Macky da ko mos a recevoir kenn yëgu ko. ma ñëw réunion ne leen y a des fantassins finalement am ko ma ni si cadre liggéey la ko recevoir te Macky loolu mooy habitude partout dafa bàyyi ay œuf di leen financer gars yi di émerger au moom laa ne maintenant il a réussi ak clarifier le jeu le jeu est devenu très clair xam nañ ñi tóob yi xam nañ ñi opposé wu ku nekk xam nga léegi sa place voilà loolu la waaw mais euh, mais Djibi Diatta tey euh, Omar Sarr dafa nekkoon ci euh, ci PDS ak maître du Sall ak Babacar Gaye ñooñu tey génn PDS est-ce que du déstabiliser PDS ndax tey lu si waaye mën a xam tamit ñoom bëri nañu ay xame ci PDS ci ci ci ci ci jeunesse bi est-ce que tey duñ dem ci ci seen structures yi ci base bi recruter la ña nga xamante ni ñoo fa nekk ndax am na tey ay ndaw yoo xam bu ñu leen jëloon tey bëgg leen a yóbbu euh, pour ñu gisante ak président Macky Sall ñoom am na lu bari loo xam ne mën nañu ko yombal Macky Sall ngir mu am accès si biir PDS est-ce que loolu mun leen a lu baree bari. mais yow da ñëw souvent si li may wax dama ne la ku si nekk dafa am lu la Macky Sall daal di soxlaa nee naa la Omar Sall Omar euh, Omar Sarr ak gàngooram ñoom kër Gueye ñoom Omar Sarr ñoo ñoo doon wër Sénégal. kon ils connaissent la cartographie du PDS xam nañu responsable yi Macky Sall mission boobu leen jox pour di dem di débaucher mais dañuy nax seen bopp. duñ ko mën fii kun fi topp wàdd moo tax ñu topp la kun fi respecté wàdd moo tax ñu respecté la loo fi am wàdd moo la ko jox nan dem ba si kanam mais fii nee naa la sànq quatre-vingt balaa ñu ñëw au pouvoir. mais jël nañ vingt six vingt six député PDS nan PDS dee na PDS garabu naataange la boo ko garee mu gën a law. mais yéen xam nga ji bi sànq yee yow yaa ngi noonu wax. ci euh, ci ministre de l' intérieur. waaw mais yéen. fii ngeen taxaw fii la Macky Sall taxaw senegal yëpp dégg ko Aly Ngouille Ndiaye mi nekkoon ministre de l' ne dinaa fexe ba Macky Sall gagné. moom ci loolu lay dox de en tant que ministre de l' intérieur wax na ko fi Sénégal yëpp di ko dégg ci kàllaama wolof. ko Macky Sall ñu na ko. Euh, bëgguñu ministre de l' intérieur organiser élection yi mu ne ma lànk moo koy organiser te gisuñu ngeen am benn taxawaay yéen opposition bi ba mën a ba bëgg ba mën a contrecarrer Macky Sall li mu waxoon moom defee na ko noonu est-ce que 2024 bu ñëwoon tey nam ko defee woon est-ce que mënu koo defee waa noonu mu yombaatee moom comme ni mu yombee woon ci moom. xam nga damay wax ñu mooy dama ne Macky Sall na génnee xelam ci troisième mandat le mot troisième mandat est exclu dans le jargon de la communication des Sénégalais. Mm-hmm. on parle maintenant du départ de Macky Sall na ranger ay bagages am daal di dem la woon wonni na dama koy répété waat le mot troisième mandat ay exclu la phrase la ay exclue dans le jargon de la communication des Sénégalais ce qui est intégré maintenant c'est le départ de Macky mu neex ko day dem mu naqari ko day dem du fi defee troisième mandat. loolu kenn du ko wax. non da. attends loo xam ne fii laa jëm kenn du ko wax. fii laa jëm kenn du ko wax fii laa jëm kenn du ko wax mais loolu na dugg si boppam nii loolu dootul nekk nekkati abadan ni na préparé ay bagages pour dem. Ah, non xam nga jibi léegi xaaral non man man dama ñun dañu catégorique xam nga ñun ñun fu ñu jëm actuellement nii. Hmm. danu catégorique man du fi nekk naan la ay. Ah. fii la ko teg nangam nangam man man mii maay wax te li may wax man xam naa ko. dama la carrément na génne xelam si troisième mandat. du ko fi defee du ko fi defee. <laughs> na prépare ay bagages am. prépare ay élections yi jaar yoon. te beneen bi mooy. Mhm. Antoine Diome. Mhm. du nu nangu sax muy organiser élection. Mhm. te dil ba mu def ak Oumar pour verrouiller le fichier ba nga xam ne képp ko xam ne ñoo ni fi rek mu daal di jàll du jàll. nous serons très vigilants. mais jibi lii ngeen di wax nii ak nii nga ko waxee nii mais waxu woon ngeen ko ngeen ne woon force Karim dina bokk ci élection yi force PDS day bokk ci élection yi mujj leen a bokk ci élection te mujjul fenn. xam nga ñun au commencement biñ ne bërët di jàpp Karim wàdd le PDS a alerte mais boobu askan bi comprendre lu ni ay règlement de compte la mais tey askan bi xam na ne Macky Sall lépp lu mu def a jaane la. si Wagadiane lay dox tey si Wagadiane lay dox ëllëg ñëpp xam nañ ko moo tax mën la même le PRS a pris ses responsabilités xam nga Abdoulaye Wade newoon na leen ni c'est peine perdue boo gisee sànq mën na tey li Macky Sall def nii dafa dimbali ñëpp le jeu est devenu trop clair parce que dans l'opposition j'étais dans l'opposition mais c'est trop proche de Macky Sall dans la société civile trop léegi lépp leer. waaw mais mais loolu lépp leer. fa laa gërëmee Macky Sall tey position yëpp a leer léegi nag moom gouvernement bi mu teg nii nag pour essayer soit un troisième mandat wala prendre quelqu'un pour jàppale ko avec un vol di fichier pour daal di dem moom laa ko naan nag ne loolu nag génne xelam benn ñaar Antoine Diome ak Omar Sarr yooyu yëpp nous serons très vigilants ba kuy organiser élection yi day doon une personnalité neutre fa lay wax ak mais personnalité neutre Macky Sall mën naa dem jëli ak nitam indi ko ne personnalité neutre la fekk ne du ko neutre. dama nous serons très vigilants mais d'abord suñu combat man ñun suñu combat tey jii nii te ñoo ngi organisé wu pour que bëggatuñoo dégg de troisième mandat mu koy wax c'est fini na génnee troisième mandat si xaar dañu waxtaan rek. xam nga la fekk nga taxaw ne ñun ne peut faire plus de trois mandats plus de deux mandats su si wax ji jeex na moom moo ko moo ko tëjal boppam je ne veux pas na préparer ay am bu ko neexee mu ngemb keneen mais kooku muy ngeng na xeex bi rafet bu mu sàqi d'accord Macky Sall bu mu sàqi waaw mais yéen mais yéen nan ngeen ni bokkee ci élection yéen yéen a nga tëdd droit euh, droit euh, seen candidat bi seen can <laughs> eh, c'est mais ji bi euh, il faut ñu taxaw tuuti yéen si si kaaw Karim Wade xam nga Karim Wade man de boo moytuwulee sax crédibilité am dina ko ñàkk bu dee ñàkk ko ba pare ndax élection 2019 fii PDS télévision yi rajo yi journaux yi Karim day ñëw day bokk ci élection yi mais ba léegi nii kenn gisul Karim Wade mais kooku nan la ko nit mën a ragale te pour mu bokk ci élection yi sax est-ce que du laaj ab amnistie xam nga non non non non non non non non non non je ne pense pas xam nga sànq dama commencé d'abord comme si rajo lañu nekk mooy wax ak d'abord waa PDS ñi nga xam ne parfois dañuy këf seen xel si nga Karim Wade boo seetloo bi ñu ko attee ba pare lañu voté ci code électoral bi képp koo xam ne tëñul cinq ans rek doo mën a inscrit ci liste bi. loolu waaw loolu moom moo taxoon ñu vi loolu moo taxoon ñu def ko. moo wax la sànq ni bi muy dem di déposer dossier candidature am bi conseil constitutionnel benn benn motif rek la ko opposé mooy inscrire ci liste bi d'accord nga ak man. Mhm. léegi code électoral bi tey jii dafa ne aussi bu ñu la tëjee cinq ans su passé rek mën nga ñëw déposer sa inscription moo tax ma la Karim léegi il est mën na insi kàttam mooy ñaan waa PDS nañ ko xamee noonu bu nu këf seen xel léegi may ma ba pare rek kon loolu on popa peut pas exclure Karim Wade procès ba muy laaj nag moom pour que gars yi setal deram comme wër nañ ba sonn lekk nañ xaalis bu bëri yàq nañ ko mais moom il tient à son honorabilité mais ñun suñu candidat il est éligible loolu laa pour wax la beneen bi boo gisee PDS ne moom sans Karim du dem élection ñun kenn duñu sàkkal candidat parce que ëllëg day def tache d'huile bu fekkee da ngay ñëw au pouvoir ma ragal caam mi ma ragal sekk mii ma xool ko rek ragal ko rek tuumal ko ah bu boobaa ku mu neex koo ragal da nga koy éliminer dama bëgg loolu mu deñ ñu bàyyi parti yi ñu choisir seen candidat ñu jëm aux élections peuple bi sanctionné positivement ou bien négativement loolu moo nekkoon principe bu PDS mais ils n'ont pas compris ça les sénégalais nag pour pour ñu diaboliser dañu jàppoon ni Karim ñun Karim dàkku ñoo jàng gënuñoo ndey gënuñoo bàyyi mais dafa am principe yoo xam da ngay dem ba sës pour ëllëg bu ko nit naree def mu ne ah li amoon na fi bàyyi leen di sàkkal parti candidat parti bu sàkk bu bu choisir candidat bàyyi mu dem aux élections population bi sanctionné ko positivement ou bien négativement noonu ngay comprendre pourquoi ñu ne sans Karim Pérez dem aux élections et on l'a maintenu mais du moo ñu gën du question ñu mën déedéet c'est pas ça loolu laa doon expliquer mais du leneen Euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi mu am samedi bu jot euh, bu 15h jotee jàpp 15h bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu invité monsieur Djibril euh, Diatta moom nag section ji de Thiaroye Kaw la nekk chargé de la communication de la fédération PDS Pikine Dagu Daan membre la ci fédération nationale des cadres libéraux mais Djibi xam nga dafa am benn incohérence tamit boo xamante ni tey dafa am ci PDS. ak seen doxalin moo taxaw fii ne damaa bëgg a dajale njabootu libéral bi famille libérale xam nga Abdoulaye Wade moo ko wax léegi loolu Abdoulaye Wade bu waxoon yéen bi ngeen mujj def seen conseil des ministres bi Abdoulaye Wade wàccee Abdoulaye Wade dajale kàngamu PDS yépp ne leen damaa bëgg ngeen dem jàppale ji président Macky Sall xam nga ko wax léegi loolu nga xam ne bëgg bëgg ab Abdoulaye wàdd la woon muy dajale famille libérale bi ci la Macky Sall nekk ay la yéwén léegi loolu lan moo tax ngeen bëgg koo ŋàññaat li ngeen war a def kay xanaa mooy rafetlu ko nag ndax yéen ñëpp Ablaye Wade moo leen formé yéen ñëpp yéen a bokk waajur kay. c'est que euh, xam nga loo ak loo contre contre Ablaye Wade jàppal ni réew mi la jiital parti am jàppal ni réew mi si la jiital ay ndawam lay Wade nee na la commencement dañ la lu nekk parti socialiste mais bi ko Abdou Diouf woo di ko yóndi di daan dem Ablaye Wade Sénégal la ko ñor bi muy def discours boobu maa ngi foofu. dafa taxaw ne man de daanu naa nangu naa ko mais ay la yéwén Macky Sall libéral la libéral laa bu leen ko yàqal dara mais loolu mooy gor xaaral dafa nànk rek loolu mooy gor mais boole si ko non waaw damay ñëw loolu mooy gor ne diw de gañe na ma nangu naa ko yàlla loolu la dogal mais dem leen ngeen jàppale ko su leen wooyee loolu Sénégalais dëgg nañ ko te loolu mooy position gor nit ko su faloo da ngay nekk si disposition pour jàppale ko mais gis nga la si tegu sàcc na ay tapis sàcc na ay oto sosol ko façon sosol bu nekk mu daal di koy muñ ñu indi doomam fa laa comprendre lay intelligence yenn sénégalais yi Abdoulaye Wade bu doon négocier balaa ñoo jàpp Karim Wade lay négocier. est-ce que doon xaaral xaaral dafa na non xam non non loolu la ñu woon xel ñun ñi xam moo tax mooy la Macky Sall tey mënatul convaincre kenn. parce que le rejet est total dafa yàgg seen dafa yàgg woog a jaan ak sénégalais mooy nax leen mais même dama nekkul si benn raisonnement bi nga wax noonu yow lay tontu quoi xam nga donc mu jox ñu aval ne kii de bu leen ko bu leen ko buntu xatal comme si woo nekkal si disposition pour jàppale ko man mi nga xam ne maay président sax su ma wooyee dama koy dimbali mais loolu lañ doon xaar si Macky sàll mais moom mais moom ndek dafa gàdd benn xen balaa Abdoulaye di génn presse bi yëpp génn nañu Abdoulaye sàcc na ay tableau sàcc na ay oto ba ñu bloqué yenn oto mii même yenn oto yi nga xam ne ab Abdoulaye ma koy may yenn sëriñ si def ko nangu Abdoulaye daal mu ñuxul dara mu bëgg a ñibbi si Sénégal gis nga la si xew mais su bëggoon dil boobu mu ñu woo Karim day toog woo Macky Sall ñu dil ne ko bàyyi sa moom defu ko foofu la dil jekkee ñu téye Karim war si prison bi su bëggoon dil fa la doon dil ne ah dimbali ma loo wax ma def ko def ko ñu tëj Karim Wade su bëggoon dil fa lay dilee yooyu yëpp def ko ñu bàyyi ba ñu tëj Karim Wade fi yow pare waaw di dil mais loolu amul sens ça pas de sens mbir day am lu koy wund ban intérêt la Abdoulaye Deme di dil ak Karim di dil amul benn intérêt amul benn intérêt loolu laa bëgg wax sénégalais bu doon am kay balaa ñu woo Karim Wade la Wade di dil wala bu ñu ko téyee balaa ñu ko àtte lay dil mais woo nañ ko tëj nañ ko toroxal nañ ko yóbbu ñu ko daawa ngay dil looy dil alors soyons raisonnables. d'accord mais euh, Ablaye Wade demoon na waxtaan ak Macky Sall ci pale ba ñu jàppoon ne Macky Sall dina dem seetiwaat ko comme ni mu ko waxee ba léegi seet si waat googu euh, dinaa seet Ablaye Wade gi amut ëpp na at euh, lan moo ci saxalaat. xam nga boo gisee ma la Macky day saxaar rek waaye du tàkk. Mhm. maa la ko wax ndax réew mi dafa am ay réalité tey kilifa yi mag am na lu ñu ko ñaan mu jox leen seen accord respecté woo ko Abdoulaye Wade melul noonu mag yi bi ko Wade convoqué fii dafa dem jooy toog ay rongo ñii si sëñ Baara sëñ Baara lan la wax kooku taalibe la ñun lu ñu ko waxloo dina ko def loolu jàngit bu rëy la Macky Sall bi ko sëñ Sidi wax lan la wax kenn du def pression si moom kon ñaan ñi bokkuñu toogoom ak Abdoulaye Wade bi kilifa ñoo ko sàkku. Abdoulaye Wade nangul leen ko. ak la mu daj yëpp lii ñu teg Abdoulaye Wade keneen kuñ ko teg nga onk pare liggéey réew dafa leen kenn defalul nga war a am jaajëf ñu téye sa doom toroxal ko mënoo ko gis loolu kuñ ko def boo motu dangay ngay dee. Macky a voulu éliminer Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade a souffert il a beaucoup souffert dafa toroxal Abdoulaye Wade. est-ce que jàppoo ne tey keneen ku fi toogoon euh, maanaam bu doon Karim Wade nekk na président tey est-ce que réglement de compte du am. non ñun duñ def règlement de compte xam nga jàpp ndox jàpp jàpp jàpp jàpp euh, Macky Sall moo gën a yomb si dem si océan bi tubb ndox tànk ndox honnêtement parlant. lu tax crime économie ñoo ngi ne gàññ ne fii Macky Sall moo la gën a xam dama la livre de Thierno Alassane Sall. dama xool foncier bi sa yaram day daw damal xool lu ñu caxat caxate alal yi. d'accord mais Djibi euh, Karim moom kañ lay ñëw. Karim Wade ma xam nga mënu ma wax kañ lay ñëw mais daal jàppal ni sunu candidat la jàppal ni il est éligible. mais est-ce que jàpp nga ne état moo ko empêché bu ñëw. non loolu lépp mënu ma si épiloguer mais ñun lu ñu jàpp te si lañu nekk dem ba tey mooy sunu candidat la il est éligible te dañuy dem élection te beneen bi. naka Macky Sall def ci xelam ni troisième mandat na génn ci xelam na préparer ay débésam organiser élection yi jaar yoon. d'accord voilà euh, Djibi euh, émigration clandestine bi gis nañ ndaw ñu bari ñoo ngi jël gaal gi lan nga jàpp ne moom moo ko waral beneen bi tamit euh, deuil national bi ñu bari doon nañ xaar état def ko état defu ko noppi si lan moo ci sa commentaire. xam nga dafa ñaaw dafa metti yaakaaru réew mooy ndaw. espoiru réew mooy ndaw bu ñu demee ba xale yi di gàddaay di dem beneen dëkk au prix de leur vie c'est grave parce que espoir amatu fi le Sénégal est devenu un cimetière d'espoir pour la jeunesse te Macky Sall il a choisi les vieux ne na ko moom nee na mag ñi lay liggéeyal ndaw ñu faalewu ma leen xoolal nomination yi xoolal nga ñoo nekk ci institution yi walla la politique de l'emploi te léegi boo jàngatee par exemple ndaw yi génn yépp ci ñetti mbir lañu génnee soit ci gaal gi napp bi doxatul ci pêche bi soit ci élevage bi cheptel bi doxatul soit ci agriculture baa bi doxatul nga toog di xiif bëgg a faju mënoo faju bëgg a lekk mënoo lekk finalement da ngay sàkk pexe loolu moo indi dem bitim réew pour nangam nangam mais Sénégal li mu am si or li mu am si ay ressources ah su ko exploité on tey benn ndaw daal di génn kon damay jàpp ni la responsabilité d'abord incombe au gouvernement te maa ngi leen masaw bu baax a baax di masaw seen waajur tey état bi tey jii nii dafa doon organiser un deuil national parce que métti na trop mais Macky Sall moo mel noonu. waa mais dañoo gis ne ñi faatu bari nañ trop mais euh, déclaration sax président Macky Sall defu ko ci bu passé li mu bind si tuitam. xam nga yaa ngi nii di ko de vous indigner son comportement ni nga koy waxee sa metti na déclaration sur Twitter te bu ñaar ni France nga lagar lagar jël avion daal dem yow sax yaa ngi koy mettilu c'est-à-dire fa nga fa wane woo ko doon mañe yaa ngi koy mettre déclaration sur Twitter alors bu ñaari français dee nga jóg jël sa avion daal di dem c'est ça ce qu'on appelle insulter la jeunesse sénégalaise euh, jibi euh, ñu wax nag euh, yéen ci PDS fi nga xamante ni mooy jiddo caaray kaw fi nga nekk di daagu daan foofu nag yow euh, loo fa def loo fa liggéey yow. loo fa defal PDS. waaw xam nga man wax sa bopp dafa dafa. mais au moins nga lii nga fa commencé. waaw xaaral xaaral xam nga ni du wax boppam man duma def loolu man inondation yi inondation yi depuis 89 ñoo ngi may déglu ba 2012 man ak Alpha Mbengue ñoo ko géré si xam-xam si yóbbu nit si dimbali askan bi. du kenn Abdoulaye Wade ba muy ñëw ñun ñoo ko doon dalal ñoo doon ñëw bu këri jaxaay def lépp ak liggéey yëpp daal parce que bokk naa si loolu daal mën naa ko wax. est-ce que euh, politiquement am ngeen fa représentativité PDS ci surtout Pikine. xam nga PDS moom moom Pikine. PDS moo ko yàgg moom c'est que da ñëw réunion da ngay ñëw réunion section yi. di xool je félicite aussi je salue le maire Cheikh Dieng qui est en train d'abattre un travail extraordinaire honnêtement parlant dama koy féliciter parce que nit ki aussi bu liggéeyee da koy respecter am na moom ay divergence nag maa moom ne la ñu am ay divergence mais il fait un travail extraordinaire honnêtement parlant dañ koy wax aussi fédération bi ñoom Balde partout ñoo ngi liggéey ensemble la maire di Sall ñun ñëpp ñoo ngi liggéey ñun ñoo fa ëpp doole ñun da ngay gis ñuy réunion fees dell xale di dama la man saa yi ma wootee kër gi day fees dell dell dell dell alors loolu moo tax tey jii nii nag il faut ñu renouveler les instances yaatal parti bi pour la conquête di pouvoir bis bu ne même keroog bi fédération di réunir waa APR yu bëri dañ fa ñëw ne bàyyi nañ ñëw PDS boo ñëwee permanence fii chaque jour cadre yaa ngi fëgg ñoo ngi fëgg porte pour bokk chaque jour laa la wax. mais mais mais daago daan est-ce que yéen nga fay def ay tournées man sax damay lancer benn appel fu mu ne nii après damay lancer benn appel par par à travers mon mouvement Karim blanc comme neige je suis président damay préparer fin de mois bi benn tournée au niveau de la banlieue tournée benn objectif la am mooy Macky dootul def troisième mandat et que bëggatuñoo dégg moo troisième mandat na préparer bagaasam. c'est-à-dire kooku c'est yéen a moom Macky ba bu ko bëggee wax du ko wax. attends attends non dafa naan non dafa nang rek il faut mu leer Sénégalais man si loolu lay former gars yi d'abord. ku si mën a ànd ak moom ñu ànd ak ñun daal di koy liggéey si loolu lañu nekk nii à part par exemple placer carte yi si jàmm intégrer nit ñi ñu daal ñu ñu massifier le parti tendre vers la conquête du pouvoir. d'accord voilà euh, jërëjëf euh, Djiby euh, Diatta ñu wax ci li nga xamante ni nag comme wax nañ ci immigration clandestine bi. ak loolu ci immigration clandestine gis nga effort bi xale yi def. Mhm. l'effort consenti au prix de l'âme pour traverser gaal yi wala traverser dergère yi am na nu ñu ko doon orienté feneen Macky Sall nekk nit. comme nan. déggoo ma de. comme nan lii ñuy daj lii ñuy daj ci si si si géej bi. di ko daj ci désert bi. loolu suñu ko orienté woon tey si Macky Sall exiger ko yéen ñi au prix de leur am réew mi changé. maanaam wàcc ci mbedd mi. non da déggool dama dégg xam nga tey dañu upp dañu daf leen jarañ joxe seen bakkan pour jéggi pour jéggi pour jéggi pour jéggi pour jéggi géej bi. pour am dara mu jaral leen ñu jéggi désert bi pour joxe seen bakkan pour am dara mais loolu lépp jaru ko woon dañ toog fii jaayante ak Macky Sall léegi affaire yu changé am nañu or am nañu pétrole am nañu jama am na lépp dëkk si loolu lay si loolu lay tous les pays sont développés à travers leurs matières première ou bien les ressources humaines le Sénégal ana am na matière première am na ressources humaines on a de mauvais politiciens à la dimension de Macky Sall. loolu rek la. waaw ah, d'accord mais Djiby euh, pour ñu jeexal Macky Sall bi mu defee remaniement ministériel gis nañ ñu bari ñoo xamante ni àndoon nañ ak ñoom euh, tàqalikoon na ak ñoom génn na leen ci gouvernement bi ñenn sax jàpp ne ñooñu dañoo amoon ay ambition présidentielle waaye ku ci mel ni Aminata comportement gis nañ ne euh, mere na trop Macky Sall ñooñu génn ci Macky Sall tey ndax su ëllëg xalaat ngi ñu dem ci opposition bi. non xam nga dama si xam kenn kuy Moustapha Diakhaté ku diñ sama grand la. Euh, ku diñ a ngi noonu li ko dal metti na ma trop te maa ngi koy ma saw mais Aminata Touré elle naa fait que payer Macky noonu lay doxalee da lay jël utiliser la dóor la si diw dóor la si diw ba pare daal di dem mais am nañ tuuti jom parce que le fait ñu bañ troisième mandat bi rek dama la attends-toi à l'implosion de l'APR sànq dama la junj ne la doo boole ay nombre rek nombre bi yokku ma la boo boolee ay golo ak ay xaj nombre bi day wàññeeku par force te loolu Macky Sall def actuellement nii c'est pas toute sommation rek mooy yokk moom laa la expliqué dès le commencement dès le xool man la par exemple moom Idriss Seck c'est des hommes chargés négativement et comme ils sont de même nature dañuy séparer wu tôt ou tard. mais est-ce que gisoo ne Macky est-ce que gisoo ne tey pour mu. impo xaaral ma pare parce que l'APR Idriss Seck moo la gën a xam ne APR da ko bàyyi. Macky Sall jiital ko déedéet de tamu loolu la gëm si boppam pour ëllëg sa mu dem si bi ne ne woon naa leen dama demoon pour liggéey gisuma leen nangam si fini Idrissa Seck n'a plus de crédibilité da ngay xeex kenn ba torox mais nañ dem ba si kanam tuuti mais li ma la mën a jàppal mooy daal si résumé mooy gouvernement bi Macky Sall créé nii troisième mandat la ak xool mi protéger ay am et les erreurs de la France. beneen bi mooy ñoom Umar Sarr li leen si dugal moo tax mu indi ñoom Umar Sarr pour verrouiller le fichier au cas où par exemple su fi tegee keneen mu daal di dem parce que Umar am na la cartographie du PDS. beneen bi mooy immigration bi xale yi dañ ko taayee loolu ñu uti Europe am na fii waxuñu ci gaz bi nous qui sommes des ingénieurs xam na ñu bëri ci gaz bi mais waxuñu ko ci gaz bi su ma ëpp solo pétrole bi mais daf ko nëbb Sénégalais yi. peut-être dikk gouvernement bu malhonnête la lii Dubaï am tey jii nii ma xamula ko tey jii nii Sénégal am na lu ko raw ma wax la ko tey fii publiquement nañu ko nëbb Sénégalais yi tey benn Sénégalais warul sonn benn Sénégalais warul souffre nous au moins plus de vingt cinq mille milliards de mètres cubes de gaz je le répète nous avons moins plus de vingt cinq mille milliards de mètres cubes de gaz une quantité inestimable loolu moom mooy métti sama waay. d'accord mais euh, Djiby euh, li nga xamante ni moom nga wax euh, am na solo. léegi lan ngay tàggoo ak sunu mbokku auditeurs yi. waaw maa ngi lay remercier d'abord di remercier waa mi FM ni ngeen ma honoré invité ma pour ma exprimer wu di masow encore waajur yi di la joxaat nuyu Ablaye Wade ak nuyu parti bi li may tàggoo toog léegi tey ak sénégalais yi mooy Sénégal du réew ndóol. ñoom Macky Sall ñoo ko bëgg a ndóol du réew ñàkk jom ñoom Macky Sall ñoo ko bëgg ñàkkal jom le Sénégal a tous les atouts pour réussir kon tey nañu fagaru taxaw temm pour ñu dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp nag mooy wan ko ni li ñu fi bëgg indi du am ni politique dafa laaj moral ak éthique si côté yépp nag di wax nag waa PDS nañu préparé wu pour lancement carte yi lancement carte nag moment solennel la du xëccoo du xiiroo dañuy ubbeeku pour ñu doon fëgg suñu parti ñëw ñu jox la suñu carte ñu conquérir le pouvoir di ñaan jàmm si réew mi mais nag jàmm ñaar ñoo koy soxla day fekk ñaar ñooñu ku si nekk bëgg ko mais ñun de jàmm la ñu ràcc mais dootuñu diglooti benn sëriñ Macky Sall lu ñu sànq dootuñu diggati benn ambassade Macky Sall lu ñu sànq déedéet parce que doon joxe suñu lex mu pes ñu dootuñu joxaat beneen lex bi déedéet li mu def doy na sëkk kon ñun on se prépare davantage suñu kar suñu candidat Karim day bokk nekk fële empêché le bi di dox à tous les niveaux kon maa ngi leen defal benn appel solennel wax xale yi nañu jàng mais de pas n'importe jàng la ñuy jàng l'université est dépassée dañ dugg si ingénieur yi génie civil génie élec jàng boo xam ne daal day développer réew merce beaucoup njàng rek moo mën a dimbali réew merci beaucoup jërëjëf euh, mbokk yi ñoo ngi ko euh, invité woon tey monsieur euh, Djibril Diatta mu bokk ci section PDS Djiddah Thiaroye Kaw chargé de la communication de la fédération PDS Pikine daan nekk membre ci fédération nationale de cadres libéraux moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf.